mbokk yi ñu ngi leen di nuyu xam ngeen ne ci bëkki démb rek defoon nañ benn point de presse doon leeral Sénégalais yi situation de santé Serigne Cheikh Bara Ndiaye ci grève de la faim boo xam ne soo bu ne ci ba mu yóbbu ci diggante dund ak dee Serigne bi itam taxawoon ci taxawaay yi am solo joxoon ndigal Serigne Abdou Samad itam ngir mu gisanteeg ministre bi nga xam ne mooy wàllu yoon ñaanoon na ko ngir nu féexal ko ngir moom la Serigne bi sant lépp taalibe boo xam ne da ngay yëngu ci wàllum jàng ak jàngale waaye itam bokk ci njaboot gi boo nekkee ci ay jafe-jafe taxawu yooyu moom la ko sëriñ bi santoon mu doxante ay jéego itam ñaanoon la ministre bi itam ak ministre boo xam ko ne ko may boobu ba tey nag sëriñ Baara mu ngi ci loxoy eh, takk der yi tey jii nag li ci soppikuwaat mooy sëriñ bi ci boppam dafa jógewaat Touba tey jii dëppoo gaawu di samedi le 12 août jóge tuubaa ngir dem ci sëriñ Baara Ndiaye ci coobareem ngir xam ne ne ab taalibe la soobu na ci grève bi ba yóbbu na ko ci digg dund ak dee satub Serigne Touba bàyyi ko ci Touba ñëw ba Ndakaaru te wóor na ko ni bu ko ñaanee ngir Serigne Touba dana ko may mu yóbbaale banaanaam ndox tàndarma ngir bu àggee ñaan ko ngir Serigne Touba jox ko digal te mu bàyyi ko ni ko say kilifa ñoo ngi ci te am nañ yaakaar ci ne léegi fii nga nekk nga jóge fa dellu sa njaboot dellu sa daara dellu sa liggéey waaye Serigne Abdou Samad bi mu jógee Touba dem tey ji ci gaawu gi ci Ndakaaru dañu ko gàntal gis bi nga xam ne moom la war a gisante ak Serigne yan na fa ba ngoon daj coono yu bari sax ci APS bi ndax Touba la xëyee ba 3 heures la àgg ba fii mu ne nii mu ngi ci yoon ak seegul Touba euh, ci tàkkusaan gi nii ñu gàntal ko gisee googu ba jëtt gisanteeg Serigne Bara ba dellu siwaat na li ci dënt nag taxaw cey tey suñu xel nag mooy démb soxnaam bi muy gis Serigne Bara mel na ne da koo fekk ñu ne ko day nelaw tey jii nanguwuñ soxnaam si nga xam ne moo ko doon taxawu mu mën mu mën a jote ci moom te sëñ baara waxoon nañ leen ci fan yi jàll te loolu daa gën a yokk mooy mënul boppam dara soxna si daan dem yu set bu xëy dem di ko toppatoo ji avocat am gis waaye tey ji dañoo gàntal soxnaam mu gis ko gàntal avocat mu gis ko gàntal sëriñ Abdul Samad mi nga xam ne dafaa demoon ngir bëggoon mu dakkal xiifal googu yi ñaan ko gi jëmi sëriñ Tuubaa surtout sëriñ Tuubaa bàyyi ko Tuubaa ba Ndakaaru waaye dañ koo gàntal mu gis ko ba sëriñ ñu ngi di ay mbokkam xam état de santé am nañ loolu teyum xel à 90 pour cent ne Serigne ñaar rek a benn daa faatu wala mu nekk ci situation boo xam ne en la mooy foo xam ne nit mënatu ko tegati bët wala ñu rus nit di ko xool waaye nag lu mu ci mën doon rek bëgg nañ ñu xamal ñu bu dee dafa dee na ñu ko xamal bu fekkee daa nekk dugal dund ak dee ba tax jabaram gisu ko avocat am gisu ko kilifa gi bàyyi ko Touba ñu ngir koo gis bëgg mu dakkal xiifal ngoogu gis ko wax li xew waaye nag comme niñ ko baaxoon defee rek mooy fii situation toll danañ jël Sénégalais yépp témoin xamal leen tolluwaayu sëriñ Bara ci wér-gu-yaramam loolu yi mooy li waral ñu leen di leeral na sëriñ bi demoon na fa tey ngir bëggoon mu dakkal xiifal gi tey tere nañ jabaram tere avocat ñu mën koo gis